dikkati na ñi ngi ci octobre rose di waxtaanee cancer turbine yéen a kaay naan man waxtu woow ñaam wopp roño ci réew mi day maar day taali ma ne ko ah, ah, mu ne ma maar day taale ma ne la te maar day taali gi nag boo moytul Senelec ci boppam moo leen ko nar a teg ay machine yoo xam ne yu jalis la ñoo daal di pan ci angaaru pèlerin yi nga xam ne moo nekk fii ci aéroport bu yàgg ba ñu dippee woon ko sunu maam Léopold Sédar Senghor angaar boo nga xam ne fa lañ yóbbu woon gars yi nga xam ne dañuy jalis yéen a kaay média bi naan man seen appareil ca boppam moo daal di paan waa place naan man ñaar fukk ñaar ci appareil la yépp yàqu tribune yéene kaay naan kon ma ñëw rek fi ne ñi am woppuk jalis ci réewum Sénégal ñi ngi daal di sëngéem daal di jaaxle ba maar day taali ndax nag benn fan boo xam ne toog nga ko daanaka defoo jalis man na laa jural musiba boo xam ne maar day taali la tribune yéene kaay naan man rax ci dolli machine yépp yépp ya ñuy daal di defee jalis ma ni la daal di paan yéene kaay des médias bi naan man santé publique ci boppam daanaka moom la autorité yu Sénégal yi def la priorité ay malade nag ñu gis leen ci réewum Sénégal Sénégal ñuy faatu ci anam woo xam ne métti na ñaaw na faatu gi mel ni tulleeg màlle ci réew mi te dara waral ko nag dara lu dul paj moo xam ne bon na ba jéggi dayoo le soleil yéene kaay naan kon monte nguur gaa ngi ciy lu de daanaka lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom benn ci milliards nguuru Sénégal daal dina koy def nag ci jàppale seemi gi ngir askan wi ci boppam ku feebar mën a jaagar-jaagar ci l'hôpital daal di faju ca dërëm du la ca fekk le quotidien le quotidien nan ko <laughs> ci couverture maladie universelle gi rek ma ni la hôpitaux yi nekk ci Sénégal juróom-ñaar ci milliards le soleil naan kon ci 2015 ba 2023 moo juróom benn fukk juróom benn milliards def nañ ko ci paju gi turbine yéen kaay naan kon terewul ma ni la askan waa ngi faatu lii dara du ko dindi te laataa ngeen di wax milliards dem leen jaagar jaagar yi ba ca angaaru pèlerin ya ngeen xool ne nag sénégalais yi nekk foofee war a def jalis fépp seen jalis gi taga téembe ndax coupure courant yoo xam ne dafa daal di yàq seeni i machine fayallaahu yéen kaay bi dee média bi naan leen waaxu leen yokku leen seen jéego làmbaay amee ma ni la ci coowul machine yii paan sénégalais yi dey duñu leen ko baal mukk ci àddina l'info yéene kaay mel ni kuy sampub laaj ci ndax dëgg-dëgg ndax wér gu yaramu askan wi nag soxal na sunu autorités yi ndax nag autorités yi xam nañ xel ni cigarette ci boppam day faat listab daal dina ñoom autorité yooyee nga xam ni xam nañ ko dañoo dem yoot ndànk daal di taxawal ab luwaa boo xam ne day daal di tax daal ñi nga xam ne nu jaay cigarette gis seen bopp ci réew mi réew mi quotidien naan waa listab ci boppam daal dina ñuy dugal nag waa nee ñu ñooñu ci boppam ñoo daal di jaay combat bi l'info naan maan listab day xamle na ni am na décret gu yees goo xam it xawoon nañ ko ci réew mi décret boo xam ne dañuy yombal daanaka njaayum tabac chauffé ak cigarette électronique ci réew mi te loolee mën na yàq liggéey goo xam ne def nañ ko ngir xeex cigarette ci réew mi listab ne bu ñu bàyyee décret bi mu daal di jàll daanaka àdduna bu tukki lay doon ci Sénégal ñu ngi wax nag waajuru ndongo yi ñuy xool seeni saagu doom di leen topp ba ca l'école ya ndax cigarette yu bees yii dafa nuroo ak feutre yenn saay clé USB organisation mondiale la santé ak keneen laa wax yëgul taxi yi waa listam ne saa buñ daan adopté ab loi wala décret génn ci xeexuk cigarette gii ministre bi day gaaw publier ko waaye tey ma ne la xibaar bii ña ngi ko rënk laas yéene kaay naan man senegal kay dafa daal di sëgg ne gaa yi defar cigarette yéen moom réew mi def leen la leen saf daal di soppi nag loi anti tabac ci loo xam ne bal tàkkul sagar xeeñul yenn kaay bi naan maan waxtu woowu tali ci réew mi ma ne la ñi ngi faat ci anam woo xam ne métti na ñaaw na juróom-ñaari téeméeri sénégalais ñuy faatu at wii ñu génn ci tali bi vox populi naan man boobu santé mentale rik na ginnaaw ci réewum Sénégal téeméer boo jël ci askan bi benn akub xaaj dañoo am dépression sever téeméer boo jël daanaka ñeent ña am na épilepsie téeméer boo jël ci réew mi daanaka fukk ya dañuy xalaat ay waxu xaru ndax seen bopp taxawul te moo ne day noonu la ñu ñàkkaleefu la ak ak yelleefu ñaam woppu xel ci réew réewum Sénégal ay militaire invalide dañu leen gaza ni ki démb ba mar day kenn ci ñoom Ousseynou Fall an ñun dey saaluñu yàquñu benn sàkku téef la ñu amoon muy suñu pension yi nga xam ne moom la nuy jébbal ñu yokk ko waxtu woow Jibi Jàllo su préfet Dakar Plateau naan defar ndakaaru rek yàqu-yàqu ak salte mbalit mu bon ak ay épave de fi jógee waaye tam tabaxin wu bon day daal di jógee biir ndakaaru lan mooy teqale nag kasoog Sénégal yi ak i jafe-jafe Vox Populi ba tey di ma xamal ne moom frapp ak àlluntin daal di nañuy xamle day kasoog Sénégal yi daanaka jaxannama la jim daal di xamle ni kasoog rëbës moom la muy dund jamono ji masu koo dund ci ngiram ba mu dee rëbës ba tey moom àlluntin Jom Center nekku ku dem rëbës tey sa xol faw mu tooy ndax nag ña nga ca ñàkkub ndox moo xam ne maar day taali ñu ne déeta waay waga ci boppam waga daal di fay feeñ libération yéene kaay naan man kaso googee faa la fleur day day ca tribunal bu Dakar daañu ko atte waaye nit dofit recours ba mu defoon tey daañu ko yër l'enquête quotidien naan yër leen président ki sàll lan moo waral nag ba tey nii na maa gu yees gi taxawul ndax na gouvernement gu njëkkoon gi fi nekkoon soppiwul dara ci jafe yi nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy dund Amadou Ba gouvernement gu njëkk dëgg tumranke gi nga xam ne sénégalais yi nekkoon nañ ci génnewu leen ci benn yoon réew mi ko dijee naan kon man laal xamis gii gouvernement gu Sénégal gu yees gi dina daal di taxaw waxtu woowu la point yéen kaay mag may xamal ne ni ki ëllëg Ousmane Sonko daañu ko létt mbaa ñu ko ci day nekk candidat ci réew am déet lépp te mooy yéen kaay naan man en tout cas bu nekkul candidat plan B yu Pastef moom bari na diggante El Malick Ndiaye Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Diop Abbas Fall Guy Marius Sagna suñu boolewul ñii ñëpp tàbbal kaso ma ni la fii lay jógee bi naan maan ca raneeru man la am na ñu bàyyi bennoo bokk yaakaar dem fekki Mouhamed Boun Abdallah Dionne yéen kaay bi naan maan guerre bi diggam ak Amadou Ba mënta ñàkk faw mu am Ismaïla Madior ci waa Grand Place mel ni ku naan leen yàq parrainage rek démb ci assemblée générale coalition bennoo bokk yaakaar ca diwaanu Tëngéej moom ministre de la justice wax ak Aly Ngouille Ndiaye wax ak Abdallah Dionne wax ak Mame Boye Diao ak ñeneen ne daal dinañuy rëccee seen coalition ba fas yéene seen Ba Ismaïla naan leen gore leen fukki at président Macky Sall tey jii ngeen nar koo dëddu te bu ngeen jàppee ni xëy suba nekk président de la république yombee na noonu mësta yombu de yeewu doon président amut fenn waaw nag ci biir réew mi yépp nga am fa présence samp ndënd taxul ndënd loole mën tëgg ndax candidature de témoignage taxul ñuy wax candidature boo xam ne dina tax ku leen ne jàkk woteel la wala it am bëgg-bëgg woteel la moo tax ñuy wax professeur ba naan leen weesagul de képp koo xam ni mataloo parrainage mën ngaa del siwaat ci rang yi ñëwaat ci bennoo bokk yaakaar ñu àndandoo liggéey bi photographie ci réew mi ñi ngi waajal ab festival international boo xam ne wàllu photojournalisme moo ko daal di waral image yu ñu booleeg ay jëf fii ci ndakaaru war a waxtaanee urgence climatique ci réew mi diggante juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre bii Dakar war a am festival international am bu photojournalisme tribune sport naan maan waxtu woowu day liggéey ba ca stade Demba Diop moo daal taxawandi stade boo xam ne 2017 ak tey ñi ngi ci defar gi ba tey France daal di xidéem tribune sport naan maan tey la a ñaaw ndax fay juróom benn